inna nasaluka xayra ma fi hada liyawm wa xayra ma baad wa naudu bika min charri ma fi hada liyawm wa ma baad wa naudu bika min azabin fi lqabri wa azabin seen rajo ci waxtaani fajar yi mu leen defal fajar jot waxtu bi dellu si na ci kàttanu sunu borom tabaaraka wa taala ji leen ko defal si ngeen ci ànd seen mbokk al Sall ginnaaw bañ sant yàlla subhaanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ñaan jàmm ci réew mi ak réew yi ko wër jaajëfal alxaaji sëñ Mbàkke Sylla mi nekkoon ci jataay bi ñaanal ko tawfiix suturaak teraanga ak poche def dara li ñu koy baaxoo ji defee fajaru samedi mooy ànd ak yéen ci rixlatun ila daaril axira bismillahi rahmaani rahim yaa ayyuha allazina amanu ittaqullaha xaqa tuqaati wala tamutun wala tamutunna illa wa antum muslimun sadaqallahu alazim mu ngi àndoon ak yéen ci jataay boobu ba tolloon ci wasfu naari mooy melal sawara yàlla nañ ca mucc ngeen mucc ca ku xam ku nekk na ci yàlla na ci mucc ci bind bi weesu maa ngi tegoon suñ baaraam ci xóotaayu jahannama xóotaayu maanaam bu ñu gasee teen ni muy xóote ci suuf wala nga ñëw ci géej gi ñu ne fii daa xóot mooy lu jëm suuf jahannama lu xóot la ndax yonent baa ngi wax ne léeg-léeg jenn waaye wax ci pénc mi benn baat benn baat baat ba sax pour moom garaawut waaye yàlla sànni ko ca a wa ne mu am juróom-ñaar fukki at door a àgg ca suuf waaw juróom-ñaar nawet mooy juróom-ñaar fukki ca suuf loolu kon xóot na ndax boo wàccee xeer wu mat ñaari kilo mu jëm cib teen gars yi jàng physique xam nañu ne diir bi muy def pour àgg du bari mu xeer ba gën a diise dem ba gën a gaaw defe naa noonu la kon nag xóotaay boobu tabaarakallahu yàlla na ci yàlla musal mu ñëw ci benn tomb kon mooy sawara dafa lëndëm waaye sawara dafa ñuul yàlla ngi wax ci suuratu Ibrahim aya 49 jàpp 50 wa taral mujrimiina yawma isim muqarraniina fil asfaad min qitraan wa taxsha wujuhuhum nnaar sadaqallaahu l-aziim yàlla nee na da nga gis mujrimoon yi criminels yi je pense que noonu la nee na nga gis leen ñoom ñépp ñu boole leen yeew maanaam ñaar ñu bokkoon lu ñuy def te baaxut ñu boole benn bant yeew ci baatu ki yeew ca baatu kee sol leen ay tuba yi ay tuba yi godoron tuba yi beteex nee sawar muur seen xar kanam ñuul kuk ba duñu ko gis noonu la ko addaxaak firee sunu boroom waxaat feneen ne ka annama axshiyat wujuuhum qitaan min alleyli muzlima ulaayika ashaabu naar hum fiha xaalidun ca suurtu yunus mun nañu nekk sawara dafay mel ni dañoo jël ci guddi gi aw daggit guddi gi weer wi génnut courant coupé courant coupé ndeysaan yàlla na coupure xew yi waay waaw yàlla na coupure xew yi amin waaw monsieur directeur yàlla na coupure xew yi nee na day mel ne dogitu guddi gu lëndëm ñooy waa sawara mum fiyaa xaalidun fa la ñuy dëkk ba dem ci Ali Imran li lay wan ne sawara dafa lëndëm te dafa ñuul yawma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh waaw al imran aya 106 yàlla bu ne bis ngi ñëw boo xam ne da ngay gis xar kanam yu weex gis xar kanam yu ñuul waaw ubay ibnu kaab jële nañ ci moom ñu jële ci misaal mu yàlla def ci yéefar yi aw ka zulumaatin fi baxrin lu ji dina sawaraa nga lëndëm ba mel ni ay lëndëm yoo xam ne dafa nekk ci biir géej ca duus ya suuratu nuur aaya 24 <coughs> ngoog zulumaat fi baxrin lu ji mooy ku nekk ci juróomi lëndëm juróomi lëndëm ñu ne nit koo xam ne kii ay waxam lëndëm la ay jëfam lëndëm la dugguwaayam lëndëm la génn waayam lëndëm la kon moom fa mu jëm mooy ila dulumaat ci lëndëm ya rek tubaarkàlla yàlla na sunu mbir yépp di leer wax ak jëf jële nañ ci abu hurayrata radiallahu anhu mu ne euh, taal nañu sawara alfa sanatin junni at lañ taal sawara mu yànj ba xonq coy ñu di ko upp ka xamb di ko upp ka xamb ba muy Euh, junni at mu weex tàll ñu di ko upp ak xamb di ko upp ak xamb ba muy junni at mu ñuul kóog faya zawaadun muslima ka laylil muslim axrajahu tirmisi wala rawahu tirmisi wa ibnu maaja jële ko ci abu hurayrata al albani nee na euh, tabarkalla daif la ma nga ca daifu aljaami waaw moo fa nekk trente et un trente cinq wa mu ne rafet na tabarakallah mbokk yi maa ngi ci rixlatun ila daari l axira ila daari l axira yàlla nañ yéex a dem ngeen yéex a dem yàlla nañ fekk ci lu neex sunu borom mu ñu ci beneen tomb mooy sawara tàngoor wa jéggi na dayo hmm waaw yàlla ngi wax suuratu tawba aaya 81 farihal muqallafuuna bi maqaadihim xilaafa rasulullah wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wa qaalu laa tanfiru fi lxar qul naaru jahannama ashaddu harra law kaanu yafqahuun allahu akbar yàlla nee na dafa am ñoo xam ne yonent bi day woote ñu absenté ba noppi kontaan ca yonent bi day woote demuñu ba noppi kontaan allahu akbar ba pare kontaan lu tax ñu ne ñoom daal wax dëgg yàlla woo gim leen di woo ñu bàyyi seen séet yi bàyyi seen kër yi bàyyi seen salon ak ndox yu sedd yi ànd ak moom ci naaj wi di joxe alal ak seen bakkan loolu dara jarul leen ko ku bëgg dem ñu ne la laa tanfiru fil xar bàyyi leen naaj bi ngeen di dox moytu leen toog leen ci kër yi sunu borom ne leen qul naaru jahannama ashaddu xarra sawaraw jahannama moo gën a métti aw naaj sawaraw moo gën a métti aw naaj suñu déggoon daañ xam loolu sawaraw jahannama moo gën a métti aw naaj wi lay wax nga dëgg yaa ilaahi waaw te mu ngi ko jëmee ci ñi nga xam ne yonent bi daa woote nangu dem ba noppi kontaan ca toog gi ñu toog ba noppi kuy bëgg a dem ñu ne la kaay toog ah waaw àdduna léegi looloo fi dox ki yor programme mu jéem a defal yàlla am na koo xam ne kii yorul programme te ba suñoon nga toog laa tanfiru fil xar waaw ba suñoon nga toog Serigne Cheikh nee na mooy mag mu toog ca ker ga gone yi di kër kër yi dem ñu ñu fekk leen fa leen toog leen bu lay ndeysaan mu ne gaa yi dañoo jëm tool romb gaa yi ca ker ga waaw au lieu ñu romb leen dem naan yéen a ngi toog ñu ne waaw ah tamit ngi toog rek xuloo ba cob bay ñuy xuloo ba jant ba so ñëwoon ca ker ga tabarkàlla ña nga toog ña leen romboon di dem tool seenum dem tool yàqu waaw sëriñ Cheikh si moo ko daan wax al maktum ci tàngaayu tàngooru sawara wa sunu borom mi ngi wax ci alquranul karim ci suratul layl fa anzartukum naaran talazza laa yaslaaha illa al asqa waaw suuratul leyli ca inna sa'yakum la shatta fa anzartukum maa ngi leen di waar maa ngi leen di tiitlu maa ngi leen di xupp lu mu leen di xuppe mu ne naaran aw sawara sawara woo xam ne tallanza tàng na jër tàng na jër laa yaslaaha du fa dugg nag illa al ashqa lu dul ku texee di lool ci waaw waaw mu ngoog surtout léegi yaa lekkool wax ay quatorze su jàpp quinze professeur jibi ah ba dama ci albaqara yàllaa ngi wax ba tey ci tàngooru sawara fa in lam tafaalu walan tafaalu fattaqu naar allati waquuduha annaasu walxijaara uiddat lil kaafiriin yàlla nee na ñii weddi alxuraan ñii weddi alxuraan nañ indi lu mel ni alxuraan suñ ko indiwut te nag duñ ko indi nañu nañu nañu ragal sawara sawara wi nga xam ne nit ñi ñoo koy xamb ñooy matt ma wal xijaara ak ak doj yi yàllaa nga ko dencal lil kaafirina ñi ko weddi waaw waaw wa quduha naasu wal xijaara waaw kon naa ko ci barki démb ca conférence ba góor gi daa ñëw ci jàkka ji rek fekk benn xale bu toog bu bu xale bi def ñaar rakk daal di toog di xaar nu julli tisbaar benn paa ñëw def ñaar ràkka toog au lieu mu encouragé xale bi mu ne ko lee nga dee loolu la wax xale bi yow lee nga dee xale bi ne ko docteur bee la ko wax mu ne ko déedéet docteur bu wax ko dee mu ne ko dangaa gis ci man mandargam dee mu ne ko waaw mu ne ko man mandarga mu ne ko xanaa sa ñëw jàkk gi xale bi ne ko xale bi ñëw jàkk day gaaw a dee mu ne ko waaw mu ne ko ah loolu de bokkut ak leen jàng ñun ci alxuraan waaw gone ga xam naa bu ma ko waxee seen xel dem ci eh, sunu gone googu nekkoon ci tamit ndeysaan Moustapha waaw waaw ak ak waajur moomu ndeysaan seen seen seen tournée yu neex yu te am solo xaw ma fu ñu nekk ci ndeysaan xaw ma sponsor ya leen seetaan waaye ëtëtu euh, ma waxati ko c'est très important am nuyu baree bari yu nuy seetaan Moustapha moom moo ko dàq ci télé bi dàq ko jàngale tubarkalla waaw këlandoo la tuddoon këlandoo waaye xale bi noonu Moustapha di tontoo gaa yi loolu la xale bi tontu paa bi xale bi ne paa bi yow mi maama lee nga dee dama dégg sawara sunu borom wax ne waquduha naasu wal xijaara paa bi ne ko waaw mu ne ko annaasu nag ñu mag lañ ak ñu ndaw mu ne ko waaw mu ne ko sama yaay toujours buy togg day am matt mu mag ak matt mu ndaw mu ne ko waaw mu ne ko sama yaay su bëggee taal matt mu mag mi matt mu ndaw mi lay boyal bu ko defee matt mu ndaw mi boy taalaale matt mu mag mi buñ demee yomul xiyaam yàlla bëgg leen a taal yéen paa yi <laughs> est-ce que kon duñ jël ñun xale yi boyal nu nu boyal leen paa ba xëm waaw paa ba xëm ca jàkk ja da di ximmilu ko ne booy bi yow doo xale mun ne ko xale laa de waaye loolu jar naa bàyyi xel lool nekk ci àdduna rek defe ne xale moom xale la bàyyi xale ñuy fa rek ndeke defe ne xale xale la ah Sëriñ di nee na penc mi day gis na fi xale bu faatu gis fi mag mu faatu gis fi góor gu faatu gis fi jigéen ju faatu gis fi sëriñ bu tabarkal la mu ne kon mu ngoog de nañ bàyyi xel ci loolu ba tey ci tàngooru sawara yàlla nañ ci mucc ngeen mucc ci ba dema ci suratul mursalaat mu ngi naan innaha tarmi bi shararin kal qasr innaha sawara tarmi ma ngay sànni bi shararin ci ay ferñeent ferñeent mooy boo toogee ci ci taal bi mu am matt gu xaw a tooy fet fet jooju muy def di sànni affaire loolu mooy ferñeent ñoom professeur di ko tuddee tuddee ay étincelle sawara bu sànnee benn kala xasr day mel ni ab etaas mu yën waaw kala xasr day mel ni palais waxut aw xal de ferñeent wi ferñeent wi mooy toll ni palais wala mooy toll ni building allahu akbar waaw ferñeent moo tax bu ne bu ferñeent ne dër ci kaw nit ñi rek boobu lu baree baree bari yàlla tere mhm. yàlla nañ ci mucc ba tey ci tàngooru sawara wow ba dama suratul xaashiya sunu borom da caa wax ne wujuhun yawma isin xaashaa aamilatun naasiba taslaa naaraan xaamiya allahu akbar dina am na fa ay xar kanam yu tiit yàlla buñ ca bokk noogi yéen aamila mu ne jëf na naasiba sonn na waaye teewul tas laa naaran xaamiya aa waaw waaw jëf na nag sonn ca jëf ja waaye teewul mook jëf ji ñu boole leen dugal sawara sawara woo xam ne xamiya dafa tàng jër yal nañ ci mujj cettt abu hurayrata radiallahu anhu nee na ci yonent bi alayhi salaam mu ne seen sawara wii nga xam ne ci la banu aadama di togge seen saware wii ngeen di togg añ ak reer ak ndékki ndaw ko ndaay mu ne wenn xal la wenn xal la wu jóge ci juróom-ñaar fukki pàcc-pàcc ci naaru jahannam seet waaw maanaam tàngoor wa borom xam-xam yee koy di ko seral di ko seral di ko seral ba seral ko juróom-ñaar fukkee pàcc ci naaru jahannam ñu door cee mën togg nii wallahi qaalu wallahi in kaanat la kaafiya qaalu innaha fussilat alayha bi tisin wa sittiina juz'an kulluhunna mithlu harriha mu ne leen giñ naa ci yàlla dañ ko caa teqee di ko di ko di ko di ko woyefal di ko woyefal ba woyefal ko soixante-dix-neuf wala soixante-neuf yëpp tàngoor wa mel ni tàngoor wu njëkk wa cettt axrajahul Buxaari ah, wa Muslim Buxaari nga ko génn ci jukkib juróom benn xatum fanwe ñetti téeméer ak juróom-ñetti fukk ak benn muslim génne ko ca xatum fukk ak juróom-ñaar euh, jukki fukk ak juróom-ñaar kon xatum ñaari téeméer ak juróom-benn fukk ak benn al imaam Ahmed oustaz Cheikh Tandia mi ngi nettali mu ne duribat bil bahri marratayni xooj nañ ko nag maanaam bañ ko wàññee soixante-dix fois dañ koo xooj nag ci géej ga ñaari yoon mu ne su fekkoon defuñu ko noonu kenn du ko mën a jëriñoo ci àdduna moom sawara moom te teewul ka fi mu nekk nii <laughs> boo koy laal rekk bëgg a tos ko rek tey coalition yi ne ci penc mi indi seeni liste bëgg a dem assemblée boo leen ràngale woon ne ku fi téyew xal cinq minutes falu boo moytul kenn du falu ku taxaw ci xal cinq minutes falu boo moytul kenn du falu kuñ teg ci sa ginnaaw gi cinq minutes tarafoo falu boo moytul kenn du falu waaw fa tàng yàlla nañ ci mucc ngeen mucc ci bokk na ci màndargam tàngooru a woowu jël nañ ci abu hurairata radiyallahu taala anhu mu ne sawara dafa am benn bis mu yëkkati ay kaddu jëme ci rabbiha ne ko yaa rabbi yaa rabbi akala baadi baada waaw sunu borom naa mu ne ko sama genn wàll gaa ngi lekk genn wàll gi maa ngi lekkante ndeysaan waaw ndeysaan sunu borom ne ko noyil noyyil ñaari noyyi mu noyyi genn noyyi noyyiwaat geneen ñu ne noyyi yooyu màndargam tàngoor la mooy waral bu fa jant ba tollee mel ni lu waaw ginnaaw dafa xawa a ofaal mu toll ci côté bu nu jege ndax docteur Ablaye Gaye ñoom buñ la tegalee ab nen nen dafa ovale boo ko sampoon mu taaje Ibrahima Fall nga fële ca Thiès ca tubarkalla dëkkum ñoom maa jare boo taajee nen mu taaje cat li jëm kaw cat li ak fi taaje moo gën a sore côté droite ak côté waaw moo gën a sore ci ñi jàng xam-xam yooyu mu tax bu jamono jooju ñëwee jamono tàng jër waaw tubarkal loolu la yàlla ne euh, sawara may naa la ngay noyyi ñaari noyyi am na ñu ne mu ngi koy def sitaay ak sayf mooy tax nuy jot aw tàngoor tabarakallah mu ngoog sa war a jox na mbokk yi lu tàng la yàlla nañ ci mucc ngeen mucc ca abu hurayra ne ba daana wax ne istadda al xar fa abridu bis salaa fa inna shiddata xar min fay i mu ne bu tàngatee jër dee leen seral julli gi ah, waaw dee leen seral julli gi waaw balaa tàng wi jër na ngeen julli wala bu tàngi ba ci kanam na ngeen julli waaw ndax naaj yu tàng jër nee na ci nokki sawaraw jahannama eh, la bokk man yahdillaahu fa huwa almuhtadi wa man yudlil falan tajida lahum awliyaa min dunihi wa naxshuruhum yawma alqiyaamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa mawaahum jahannam kullama xabat zidnaahum saira jërë ngeen jëf ci ànd beeg si FM seen rajo waxtaan wi jeexut buñ ko dégloo benn yoon ñaari yoon ñetti yoon danañ indi bu bees incha allah sunu mbokk yi xëy ci xibaar ñoo nekk nii taxaw yor seen këyit bëgg leen a firiñ fànteel xibaar ci tubaab firiñ fànteel leen ko ci wolof ñoo leen yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bii waaye ak suñu sponsor bii C3S ak mu ko àndal nekk ci tabaarkàlla euh, yoonu Lagros wa ca kër Massar.